mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal àq di leen baalu àq di ñaan yàlla senegal gi ñu nekk yal na fi yàlla wàcce jàmm te daan ko fi yàlla saxal ñu ngi ñaan yàlla mbooleem kalifa diini kalifa aada yàlla dafa sax ñoom jàmm ah mbokk mi ñu ngi sant yàlla bu baax ci laaj bi nga xam ne laaj nga ko mooy Cheikh Omar Diop naka lay fàttele waaye duma ma doon du ma wax yedd waaye damay wax fàttali ndax alquran moo ñu wax ne mañ fàttali ndax fàttali dana jëriñ ki nga xam ne gëm na yàlla doomu aadama li nga wax kooku yàlla moo ko teral yàlla moo ne wala xat karam naa ba ni aadama yàlla bi nga xamee ne bëgg na doomu aadama daf ko bind bind ko ci melow yi nga xam ne moom yàlla moom la meloo deral ko bëgg ko ba def ko xalifaam jàng nañ ci alquran yàlla di wax yaa daawuda inna jaxalnaaka xalifatan fil ard jàng nañ ci alquran yàlla di wax ne inni jaayilul fil ardi xalifatan kon yàlla bu fekkee jël na doomu aadama def ko xalifa doomu aadama boobu màgg na màggaay goo xam ne foor na fooraay goo xam ne yàlla def ko xalifaam rek libéré ko wàcc ko rek muy demal boppam bi ko yàlla defee xalifaam daf ko bind ba pare ànd ak moom wàcc ko wàcc ko boppam ba pare nag bind yonent yi envoyé leen ñu ñëw pour doomu aadama pour ñu gën a encadrer doomu aadama pour ñu gën a wan yoon doomu aadama si yoon wi mu war a aw waaye nag mu jëlaat encore beneen yonantu boo xam ne moo gën mboolem yonantu yi pour wane ne doomu aadama rek teraanga ji ma ko defal doyut ba tey mu jëlaat yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko pour mu nekk ki nga xam ne mooy doon sang yonantu yonantu yi rek doyoon nañ waaye mu yónniwaat beneen yonantu boo xam ne moo gën a foor yonantu bi nga xam ne yonantu yi nga xam ne yónni donc doomu aadama bi xam moom mooy ak niveau bi ko yàlla yëgal bind na ko def ko doomu aadama teral ko def ko xalifaam doyut mu yónnee ko ay yonantu doyut yonantu yooyu li ñuy foor foor foor ak li ñuy kawe kawe mu jëlaat beneen bu ëpp doole yonantu yooyu noonu yëpp mu yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu yónniwaat ko pour doomu adama kooku nag bi mu ko yónnee daf ko wax ne ko wama arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin ci beneen di waaye mu ne ko wama arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas xam nga kooku dafa ut ndax yonentu bu nekk benn yonentu bu nekk dañ ko doon yónni ci benn gox kii nag dañ koo jël defar ko mu nekk koo xam ne moo gën a foor ñu ñëpp yónni ko pour doomu aadama loolu doomu aadama moo ko nag doomu aadama boobu laaj na ñuy dem ba yàgg ñu def taxaw jàngat xool doomu aadama boobu ban mission yàlla jox doomu aadama boobu considération la yàlla jox doomu aadama boobu ban taxawaay la war a am ci société bi doomu aadama boobu ban représentatif la war a am ci société bi doomu aadama boobu moom sax en retour en lui-même waroon na tax sax yenn saay sax mu jékki-jékki bi yàgg mu waxtaan ak boppam comme ni nga xamee ne benn bés dal na ma ma jékki-jékki rek toog ba yàgg rek mel ni yàlla daf ma wax na ma ah, Cheikh Omar léegi nag toogal nga waxtaan ak bopp. gis na aadama bi laaj na yenn saa yi mu toog mu wax ne nit ki eh, warta am benn xarit wala benn soppe. bu dul boppam gannaaw boo xamee ne sopp na yonent bi sopp na wali yi sopp na yëpp beneen beneen beneen beneen beneen wax laa nit ki en tant que ci biir société bi ci biir yeneen nit yi ci biir jaxasoo gi muy jaxasoo ay mbokkam ay xaritam ak ay am di jàmm xarit bi jëkk mooy xarit bi nga xam ne mooy sa bopp yow ndax Cheikh Ibrahima mosoon na ko nekk li sax ci benn xissa mu ne eh, ñetti xarit moo am xarit bii da nga ñëw ne ko rey naa nit mu ne la foo xam jëmal bi may lay xam di xamante yow rey nit taxutu démissionné ci seen xaritoo gi beneen bi ñëw nga ne ko rey naa nit mu ne la nañ ànd ku la laal laal ma nañ ànd ma xool rek nit ki nga rey noo ko reyee a fu ngeen ngeen dugg gën dugg gën dugg gën ba dara desul du avocat yi atte nañ ñu ne dañ lay tëj en prison dañ lay tëj prison moom mu ne ah man kat mënuma ànd ak dugg ci prison bi dama lay bàyyi ñu tëj parce que li mu mënoon yëpp def na ko. plaidel na la fay na avocat yi waxtaan na def na lépp mënut a dugg prison bàyyi mu ne kooku baax na waaye taxut mu gën am beneen xarit boo xam ne dangaa rey nit mu ñëw ne la nga ñëw ne ko dama rey nit mu ne la nañ ànd ku la laal laal ma foo dee ma dee fa ku la tëj tëjaale ma bàyyi mu ne kookoy xarit mu ne xarit bu njëkk bi mu ne mooy sa alal yi ak sa soxna yi soo yi génn àddina rek keroog la ñuy démissionné ci yow pare duñ génn sax biir kër dañ laa wax ne carrément bi ngay ànd ay bi ñu ànd yow dee taxutoon kon da ngaa rey nit boo xasee dee rek rey nga nit yaa ngi dégg xarit beneen bi ñëw nga ne ko damaa rey nit mun leen lañ ànd mooy sa xarit yi ak sa àndandoo yi ak sa dëkkandoo yi yooyu boo deeyee danañ ànd yow suul sang la suur la yóbbu la si jumaa ja jullee la layoo layoo la avocat yi yooyu yëpp bu ñu demee dana desul nag avocat mooy malaayika yi témoin yëpp diw sangam kat moo defoon lii sa sangam moo baaxoon fii diw sangam ko ameel bor naa nga waxal waxal waxal waxal bañ avant àdduna na d'accord nañ léegi dañ koy tëj dañ koy yóbbu dañ koy suuli ah mu ne kii kat taxutoon muy xat bu ñu demee ba ci biir pax ma bu ñuy suul kenn doo ci dégg mu ne nañ ma suulaaleeg diw parce que sa xarit la foofu la mën a yem keneen ki nag ñu ñëw ne ko damaa rey nit mooy ki nga xam ne nag foo taxaw mu taxaw foo nekk mu nekk fa mu la laal laalaale ko mooy sa jëf mu ne sooy dund yaa ngi ànd ak moom sooy dee yaa moom sooy dekk yaa ngi ànd ak moom sooy dem pencam yàlla yaa ngi ànd ak kooku nag laa bëgg ñu waxtaanee tey muy xarit boobu nga xam ne mooy xarit bu sincère bi xarit bi nga xam ne du la fen xarit bi nga xam ne du la nax xarit bi nga xam ne sax sincère na si sincérité am na ci ba yow loo def mu fekkee ko xam ko ba pare soo ko bëggee weddi sax su demee ci yàlla sax ne diw diwkat defoon na nangam tey masalan nit ki da gis tey mu taxaw wax sama loxo sama tànk sama bët sama gémmiñ sama dënn sama sama sama sama ainsi de suite sama sama yooyu nag ñoomu ñoom buñ dajee seen représentation kenn lay nekk kooku mooy sa ki nga xam ne booy lekk mu ngi lay gis sooy naan mu ngi lay gis sooy ànd ak sa soxna mu ngi lay gis te yow xam nga ne moom mu ngi lay gis te xam nga ne moom xam na ne yow mu ngi lay gis sooy fen mu ngi lay dégg te yow xam nga ne yow mu ngi lay dégg sooy sooy sooy naxaate ki ngay nax xamut na yaa koy nax waaye xam nga ne yow moom xam na ne yaa ngi naxaate moom yow si sa jëmmi bopp yow xam nga ne sa xarit bi ànd ak yow ah te koo nax sooy naxaate moom sax day xam ne yow yaa ngi naxaate yow xam nga ne moom mu xam ne yaa ngi naxaate te yow xam moom moom xam na ne yaa ngi naxaate waaye ki ngay nax nag mën na bañ xam ne yaa ngi koy nax sooy sooy digaate te doo def jëf digaate boobu moom xam na ne yow yaa ngi digaate mais naroo koo def te moom xam na ne yow lii ngay digee naroo koo def te yow xam nga ne moom xam na loolu te yaa ngi taxaw mu ngi taxaw yéen a ngi ànd te rusoo ko te moom rus na def moom su na la yow ba nga xam ne du def loo loo d'accordul du def loo du def loo àndul du def loo xam ne hmm, du du def loo xam ne du la du wax loo xam ne du ko def du du du du diggee loo xam ne du ko def dem na sax ba nga xam ne sax alquran sax indil nañu aaya al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydi wa tasudu adduna bi te yàlla wax ko ci suuratu yaasin muy wax eh, salaamun qawlan min rabbin rahim moom taasoo yoom ayyuhal mujrimuna allama ahadi ilaykum ban yaa banni aadama allama ahadi ilaykum yaa banni aadama an laa saytaana innahu lakum aduwwun mubiin foofu nag dafay am ñaari ñaari affaire fii seytaane la fële xarit la xarit bi nga xam ne nag mooy xarit bi nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg xarit mooy kii ma lay kii nag sincère na sincère boo xam ne soo àndee ak moom di def ka wax ba bés ñëw yàlla taxaw nga taxaw mu taxaw bu boobaa yow soo waxee yàlla dana la ah diw sàngam bés sàngam dafa nga nangam nangam boo bëggee mii mu ne ah moom comme dafa sincère du fen comme moom dafa sincère du naxe comme moom dafa sincère du fàtte comme moom dafa sincère du du du du du wax lu mu gëmul nga gis mu taxaw man de maa xooloon wala mu ne man de maa yëkkati woon ca loxo wala mu ne man de maa taxawoon maa doxoon ci tànk wala mu ne maa yenu woon ci bopp la mu ne maa lekkoon ci ci ci gémmiñ xam nga kii dëggu moom jël na engagement am jël na responsabilité am ana yow lu tee nga jël sa responsabilité avant boobu loolu di xew am nga responsabilité jël ko ngay bàyyi sa xarit muy muy dëggu te yow nga ne sa xarit la te donc xarit bu ñu koy wax mooy benn benn quelque chose bu ñu xar ñaar donc comme moom sincère na yow essayé nga sincère comme moom il faut être comme lui parce que mun suñ fekkee dañuy wax xarit ne moom wala ñuy wax nawle la la moo nawle wolof di wax nawle mooy koo xam ne euh, da ngay def da ngay bañ a def lu loo xam ne moom du ko def loolu mooy naw le wala nga xam ne doo wax loo xam ne moom du ko wax wala nga xam ne doo dem foo xam ne moom du fa dem nga ne diw mooy sama nawle fu mu dul dem du ma fa dem fu mu dul wax du ma ko du ma lu dul wax du ma ko wax lu mu bëggul du ma ko bëgg kum kum kum kum kum deful àndandoo duma def du ma la def àndandoo kooku mooy nawle te nawle dëgg nag mooy kii may wax nii bokkul ak nawle bi nga xam ne yow yaa ko tànn ne sa nawle la ndax nawle mooy koo xam ne looy def looy def daf koy fekkee da ngeen ànd di def da ngeen di ànd di di bàyyi da ngeen di ànd di bëgg di ngeen di ànd di bañ bee nag moom mën naa nekk foo nekkul mën naa fekkee loo fekkewul mën naa yow mën ngaa fekkee lu mu fekkewul kon kooku du vrai nawle vrai nawle nag mooy ki nga xam ne soo bëggee fen mu dégg ko di la wax na ah yaa ngi fen de te moom du fen moom ak loo mënti mel loo am daraja bu la yàlla mën a may ak xam-xam bu la yàlla mën a may ak juddu bu la yàlla mën a may du xool ci yow du xool loolu ci yow moom ngi xool mission bi ko yàlla suñu borom dénk ci yow moo tax mënoo koo nax doo ko jaral fen doo ko jaral muy wax lu gëmut doo ko jaral dara kooku nag moom laa bëgg nit ñi bàyyi bàyyi xel ci moom mooy ki nga xam ne yaa ngi ànd ak moom foo nekk mu lay gis sooy fen mu ngi koy dégg sooy wax sax yenn saa yi sax mu ne la ah ëpp na te doo ko bàyyi xel yenn saa yi sax nga bëgga a gaañ nit mu ne la ah te nga koo bañ a def doo ko déglu yenn saa yi nga bëgg dig nit loo xam ne sax doo ko def mu ne la ah lii yenn saa yi nga bëgg dem njaaloo mu ne la ah yenn saa yi nga bëgg wax loo xam ne gëmoo ko mu ne la ah yooyu yëpp doo ko tig léegoo léegi sax nit ñëw demandé la service boo ko mën a dimbalee nga bañ mu ne la pourtant mën nga koo defal nangam pourtant yow am nga xaalis boo denc fële boo xam ne soxla woo ko doo ci coppati tuuti may ko nga ne ko du ma la déglu te yow nga def ko xarit te yow nga def ko àndandoo te yow nga wax ne mooy sa nawle foo toog di ko tiitaroo sama bopp bopp bi sama loxo yi sama tànk yi sama doole ji sama dënn bi waaw aywa yow yaa ngi tiitaroo jàmbur yàlla bi yaa ngi tiitaroo kooku nga xam ne yàlla moo ko booleeg yow te yow lu mu la digal doo ko def lu mu la aaye doo ko bàyyi yow doo xool sax doo ko ruus sax benn yoon yéegoon sax sax nga bëgg a jël doomi jàmbur boo xam ne sax xamu ko sax nga bëgg koo nax te doo ko ruus te yéen a ngi ànd te moom lu mu bëgg def ruus la ah, waaw yow it nag lenn ko seet léegoon léegi sax ñu dénk la xaalis ci société bi sax yow nga di ko lekk moom mu gis na yaa ngi koy lekk mu lay aaye doo ko déglu te nga ne sa xarit la loolu man du ma ko d'accord man mënu ma nangu nit ki su fekkee ne conscient nga waroo nangu sa bopp di lay di lay yedd ndax léegoo léegi sax nga def benn affaire boo xam ne da ngay mujj sax ti yedd sa bopp naan lii de vraiment warum ko woon def non yeddoo sa bopp moom moo lay yedd est-ce que di nga continuer di déglu ay waxam xam na loo xam ne maanaam c'est irré c'est irréparable te loo xam ne boo koy def te mënuloo ko rectifier mënuloo ko avant nga koy def del waxtaan ak moom balaa ngay jël décision waxtaanal ak moom ba xam lu lay wax nga di ko déglu ndax kooku mooy sa xarit du la nax du la fen parce ko xam ne buñ demee ba ci kanam yàlla sax lim defoon lay wax te yow da ngay xam ne kii xam ne ne yow xam nga ne jour sàngam yen ñaar yen a àndoon yow nga wax ko yow ànd ak moom nga jëf moom mu fekkee nga bëgg a weddi moom moom mu mujj sax jël responsabilité bi xam nga ki bëgg na la bu demee ma ca kanam yàlla mu ne maa xooloon yow xam nga ne man da wax ne sama bët xam nga yaa ah wax sama tànk xam yaa moom tànk bi moom mu mujj sax jël responsabilité boobu ne moom moo xooloon yow ana nga yow seetal li may wax mu jël sa responsabilité maa jëloon te yow yow xam nga ne moom jëlul yaa jël parce que yaa waxoon sama loxo yaa waxoon sama tànk waaw aywa moom mu mujj jël ba mu mujj la bëgg ba sax taxaw sa diggante yàlla sax pour plaider la jël responsabilité boobu aywa yow ana nga looy daw du tax nga du tax nga wéet ñu jox la xaalisu mbooloo mi lekk ko xanaa waxtaanoo nag moom lu tax nga ànd ak ndaw si nga ne ko dama laa bëgg te fekk da nga koy nax xanaa du bàyyi woo ko xel te pourtant bi ngeen bi ngay wax ak ndaw si yéen ñaar yéen a yéen a moom yéen a ànd ci moom. ni ngay jël xaalis waa ji di ko nax même bi koy agressé sax même bi nga koy duur yéen ñaar yéen a ànd moom fekkee na ko bàyyi xel kooku suñu station waxoon na ne man xarafa nafsu woo xarafa raboo fa xat xarafa raboo xarafa képp ku xam sa bopp xam ku yàlla ku xam yàlla xam yaay kan aywa te yàlla ngi wax ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ñun yàlla ñoo leen gën a jege seen buumi xol te yàlla ne huwa maakum ayna maa kuntum fu ngeen nekk maa ngi ànd ak yéen ah aywa kon kooku kan la ki ngay àndal noonu nga xam ne mu ngi toujours présence en côté de toi même si tu es avec ta femme même si tu es avec tes enfants même si tu avec tes copains koo munti nekkal même si sa sëriñ sax boo nekkee moom même sa sëriñ bi sax am na xarit boobu ak ku mënti nekk yàlla bindal na la nga am kooku kon nit na conscient na dell si wat nit warta soxor nit warta iñaan nit warta bon parce que am nga ku lay wax bul bon te pourtant waroo nangu sa yaay yedd la te pourtant sa mu ngi ànd yow balaa yi ñu lay yedd fekk moom mu la wax waxoon na la avant bul def te bi nga paree yedd na la avant kenn di la yedd ndax pour nit ki yedd la il faut mu yëg li nga def te moom soo nëbbee loolu ba ki la waroon a yedd gisu ko mais attends dafa ndànk moom gis na ko yedd la kon da ngay da jël kooku nga def ko xarit. un ñëw na ci man am ko ñëw di ma service na ma na ko may nangam bon ma am complexe am kersa pour wax ko ma laaj ko ko léegi kii laaj na ma nan laa koy def mu ne ma non non non complexe bi ak kersa bi sa yoon newu ci bul fen wax ko dëgg ne ko mënuloo ko ma ne ko léegi nu may def mu ne non non wax ko ma su ma ko ko waxee après dina ma mere mu ne non non non yow waroo sàkk kii ñun ñaar kii ñun ñaar man ki ma boole yow bàyyi ko xel kooku noonu la ñuy sàkk ngërëmam man sama bopp sama man moom moom laa considéré ah. parce que moom laay bàyyi xel man même yow sax je m'en fous de toi ah. man toppatoo ma la de man kooku yàlla yàlla mi xam ne moom bu la yow kooku noonu laay du man sóoru ma la yow de. mu tax man ma wax la nala wax ko ne ko mënoo ko wax ko ne ko mënoo ko mam yow boo kontaanee je m'en fous fekkee ne kontaan nga ah tant pis eh, man li ma laaj nga ma wax naa la sama position ne ko mënuma ma ne waa ji mënuma ma kon d'accord ma gis ne kon man ndeke affaire bi ndeke soriwut ñàkk ku ma waxtaanal ak ñàkk ku ma conseillé laa a mais pourtant dan na nit daan ma wax dara mu ma rus ko wax ne ko xaaral ma xool fekk waruma ko woon a xaaral ma xool ko war a léegoo la nit wax ma dara moom mu ne ma a ah, attends defal ndànk santal yàlla parce que yàlla may na la nangam may na la nangam ba denc nga nangam fële soxla woo ko sax te kii nii envoyé rajo la yàlla ko yónni ci yow bu ñëw ci yow demandé la service bii nii mais mën nga ko noonu mën nga ko xam nga ne mën nga ko man xam naa ne xam nga ne mën nga ko yow xam nga ne man xam naa loolu tamit mënoo maa ndax mënu ma laa ndax man fenu ma mais yow mën nga ko defal ko ko mais mais kii su ma ko ko defalee du ko wax ñoom Samba du ko wax ñoom Demba kenn du ko yëg mu ne non attends man yëg naa ko yow yëg nga ne yëg naa ko te xam nga man maa sa xarit doy na te man xam naa ne soo ko ko joxee man dinaa ko yëg te moom moom bu ko nëbbee wax ko kenn tamit man yëg naa ko man ak yow ñun ñaar yëg nañ ko te man dinaa wax yàlla yow li ko may doy na yàlla boo xamee yow man yow yëg yëg yàlla boo xamee yow li ko jox doy na ñoom nguur ñoom jegaan ñoom paate ñoom yëguñ ko karaawut man ak yow maa sa xarit yow maa si soppe ma jox ko rek ma a pourtant dëgg ma jël loolu ma may ko wàcc kon ma gis ne kon ma léegi léegi ma ñëw mu na ko mais man kii ñaan na ma fii su ma ko joxee ñëpp gis na damaa tiitaru mu ne non non man xam naa yow tiitaru woo xam man su may wax yàlla naa xam na kii tiitaru woo du ngistal de jox ko te Cheikh Ibrahima sax waxoon na ne jëfal sëriñ amul ngistal wali yàlla yi ñu ne ngistal du ko yàq Cheikh Ibrahima Niass mu ne ngistal du ko yàq ngistal amu ci jox ko. jox ko mu ne ah kon baax na comme Cheikh waxoon na ci loolu jox na kon xaaral ma jox ko léegi-léegi ma joxe ko ci mbooloo ñu ne ah diw sàngam moo mën a joxe nangam diw sàngam moo joxe nangam fekk man man waxtaan ak mbooloo mi dafa am ku mu ànd ku wax ak man ne naa joxe ci moment boobu moo tax ma joxe léegoo-léeg nag ma joxe ko ci biir néeg léegoo-léeg ma joxe ko ci biti léegoo-léeg ma joxe ko ci fu kenn nekkul léegoo-léeg ma joxe ko fu ñëpp nekk léegoo-léeg ma bañ ci biir mbooloo fekk moo ma wax na ma bañal comme mënoo ko sincéral bul xool nit ñi ñooñu duñ sa xarit amuñu benn représentation ci sa kanam borom duñ fa taxaw duñ fa texaw boobu bës yàlla ne yow ma al yow ma laa yoon fool maawlu wala banoona ilaa man ata laa bi qalbin salimin bés boobu bàyyi ko xel yawma yaxfiru mar'u min axiihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yughniihi bés boobu bàyyi ko xel ñii ngay sóoraale foofu dañuy taw duñ toog man dong ak yow ñoo fay nekk kon kay kay doy na sóor ma man na la may sa xarit te pourtant yàlla may na ma pouvoir ba toll ni mbooloo mi niñ toll ndax su ma yóbbulee yàlla su ma ko tegalee dafa may gëm ndax man la délégué pour ma ànd ak yow ba keroog ngay génn àddina te du tax ma bàyyi la de du tax ma bàyyi la damay ànd ak yow ba péncam yàlla yàlla bu taxawee ñëpp taxaw man damay taxaw te sama responsabilité du ma ci daw dara te xam nga ne man du ma daw responsabilité du tax parce que lu tax keroog biñ demee biir sàngam nga dóor diw kooku noonu nga dóoroon keroog. ni nga ko dóoree ñu dem wax nga ne dóoruma ko man waxoon naa la keroog yaa ko dóor su fekkoon damaa ragal wala ma kii kon man du ma la wax yaa ko dóor te pourtant wax naa la ne yaako ko dóor yow nga wax gaa yi na leen dóoroo ko kon xam nga kooku mënuma ko échapper moo tax nag keroog la ma dimbale ma libre ci sama bopp su ma waxee dara ma mën ko ci saa si laa koy d'accord ma xaar nga dama sax merci parce que xaaruma sa remerciement am na ku may remercier koo xam ne soo remercier mu remercier soo remercier wul mu remercier su ma la bañalee toppatoowu ma sa mer parce que sa mer amul benn représentatif ci man benn benn représentation ci man lu ma sóor sax na kontaan nga wala mer nga depuis lors nag laa libre ba gis na nekke tey nag am naa aljanna ah, ci sama àddina maa ngi wéttaliku yàlla maa ngi fàttaliku yàlla maa ngi jëf ngir yàlla maa ngi ànd ak nit ñi ngir yàlla maa ngi wéttali ak suñu su ma toogee man kott man ak moom ñu toog ñépp dem mu may fàttali jëf yu baax yi ma doon jëf naan ma jour sangam fàttaliku nga ba nga defee nang est ce que mënoo ko woon gën a yokk beneen yoonee ci yooyu lay waxtaan ak man léegi ma dem ba yàgg ma gis ne Cheikh Ibrahima waxoon nañu ne waqut da tarfan xan xëyoo bi naasi dammal sa gis ci ayibu nit ñi ba dem mu yàgg moom mooy fàttali aay mooy fàttali bay abiyaat Cheikh Ibrahim boobu naan ma pourtant nit ki kii bu xool li mu bon li mu def bu xool lu bon li mu wax li la waxoon keroog bu ko fàttali ko bàyyi ko garaawut matul dafa fàtte ma fa dafa fàtte ki ko yàlla booleel comme man min ni la yàlla booleeg moom moo tax mu wax la lii waaye su fàttali ko woon ne man maa ngi ànd ak yow to moom mu ngi ànd ak bosam kon moom du du du taxawee taxawaay kon nag kenn ku nekk ci ñun xam ne yàlla nga boole xaritam yàlla nga boole soppeem yàlla nga ko boole ak ak nga xam ne moom la gën a bëgg xam ne sama bopp ma la gënal du bañ naa la kon mënti bëgg sa bopp moo ci war a jiitu su dee sëriñ bi su dee xarit bi ku mënti doon kenn rek laa gis ne moom lay war a bëgg njëkk suñu bopp mu yónni teel ma am sens kooku moom mooy kii mooy moom mooy ñëpp rek kon nañ xam ne nit ki am na ku koy yedd na ko déglu nañ xam ne nit ki am na koo xam ne mu ngi ànd ak moom du fenn kooku du du du naxaate te bu julli jotee dina la wax heure julli jot na su ko jotee mu wax na woor jot na dafay fàttali rek lu baax rek te kooku ndeysaan kooku xarit la nañ ko jàpp nag maa ngi dénk loolu nit ñi ñu leen di wax ne nañ ragal yàlla ci suñu wéetee nañ ragal yàlla suñu wéttalikoo nañ baax nañ yéene nit ñi jàmm nañ yéene nit ñi salaam képp ku ñëw ci ñoom di wax leen proposition boo xam ne mën nañ ko nañ ko accepté suñ ko mënul nañ ko rejeté ci saa si te dimbale jaamab yàlla boobu nga xam ne mu ngi leen di proposé soxla boobu te ñu bàyyi xel ñu buy booy liggéey nga xëy heure say wàcc nga wàcc heure bul laaloo moomut bul fen kooku wax loo que loolu yëpp wax nettali naa la ko ci biir waxtaan bi ne la kooku mu ngi mu ngi ànd ak yow ci loolu kon wax dëgg yàlla nañ bàyyi xel ci kooku nañ bàyyee xel ci loolu te doomu aadama bi yàlla dina ko éegale ba àggale ko ci maqaama boo xam ne mooy gën a kawe malaayika yi su fekkee mu ngi déglu xaritam boobu mën na suufe suufe ba gën a suufe sax asfala saafili na te mën na suufe ba gën a suufe sax bàyyi ba bàyyi may mën na kawe ba gën a kawe malaayika yi mën na suufe a suufe bàyyi may waaye ci kaw booy kawee ba egg ci malayka yi mooy ngay déglu sa xarit nga di waxtaan ak moom mën nga dem ba gën malayka yi ba mën nga bañ a déglu kooku nga dem ba bàyyi may sax gën la kon ñu ngi tëjee foofu suñu waxtaan di leen wax ne incha allah am nañ beneen jotaay ak yéen boo xam ne ci leneen la ñuy waxtaan ci jikkoy ji ci melokaan bi wala ci itte ji nit ki war a am ak ut bi muy ut nan lay góor góorloo pour mën a am loo xam ne dina ko mën a présenter ci àddina ñu xam ne diw nekkoon na fi loolu yëpp incha allah dinañ ci dugaat beneen yoon wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh